sata rahmaani rahim mbooloom ginnaaw buñ leen nuyoo ñu ngi lay ziar yaay booy tur bi naka la. soxna faatu Gueye. mbokki fan. Bampana Fall. ah léegi comme que dañu la gis ci ziar bi nii dañoo bëgg a xam ana naka nga koy naka ngay dundee mbégte mi. xanaa sant yàlla rek. julli Yonent bi. sant sama ñaar bi sant Serigne Touba Balaye sa lépp moo ko jëf. sama xol dafa sedd. ne jooy ba sama bopp sama bët sax dafa yokk ndax xol bu sedd rek. Ah, damay ñaan yàlla sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér lépp luñ fi ñaan yàlla yàlla na ko suñ borom nangu isaare ko ci julli isaare ko ci njaboot gi yëpp li ñu tiit ci njaboot gi li ñu ciy jaaxle li ñu ci jaaxle ñu ñaan yàlla na ko yàlla saafara ci barke Seydina Mohamed barke Serigne Fallou Balaye sa donc ñaan ci yàlla sunu waay daw li fi tëdd yàlla na yàlla tàbbal ci àjjana firdawsiya wala léegi Serigne Touba yéen tamit yàgg fi lool te wér kontaan naa mënu maa wax dara barke Serigne Fallou mënu maa wax kontaan naa sant naa yàlla bu wér ginnaaw yàlla sama caat moo ma andi daaw mu ñëw toog tombeek tombeek sama taaw gaañu mënu maa ñëw mu ren mu ne ko bu suba déwénee dinaa dem ba ki dem ma yaay siyaar bi dimanche la ma ne ko bu sooba yàlla damay dem ay timis laan dugg Tuubaa Tuul. macha allah kàddu rafet na trop. auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw buñ leen nuyoo ba noppi ñu ngi leen di ziar dafa mel ni tey damaa fekk si waa cuisine ngir rek ñu xamal ma ana ban yëg-yëg lañu am si ziar bi ma am fi benn membre muy Serigne Abdoulahat Ndiaye ak Soxna Fatou Ndiaye kon xam naa dañu daal di commencer rek si Serigne Abdoulahat Serigne mi ñu ngi lay ziar. Euh, soxna si maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax euh, di leen nuyu di rafetlu euh, seen teewaay ci liggéeyu cuisine bi ñu koy rafetlu bu baax a baax. xam ne ñun waa cuisine macha allah euh, ba ñu ñëwee ba léegi mm, gars yi ñu ko àndal yëpp ñoom ñu ngi ci liggéey bi ay jàmbaar lañ te itam liggéey bi ni mu waree rek incha allah ñi ngi ci taxaw li ñu man suñu kemtalaay kàttan te gëm nañ ne incha allah ni ngeen ko bëggee dinañ leen ko dinañ leen ko ni defale incha allah loolu daal mooy suñu taxawaay euh, ngir sàkku ngërëmu siñ bi rek ak euh, li nga xamante ni lépp lu sëñ bi maye rek ñuy ñaan am ci lu gën waaw loolu daal la ñuy la ñuy sàkku euh, loolu daal mooy bëgg-bëgg bi euh, waaw. ah jaajëf bi kon dafa mel ni dañu daal dem si soxna Fatou rek bismillah. salaamaaleykum. ñoo leen di ziar bu baax. di di rafetlu it teewaay bi. di di sant borom bi ndax mën nañ ni li yëpp ci ci ci ndigalub sëñ bi la rek. ndax li ñu def nii yëpp sëñ bee tax ñu koy def tey sàkku ay ñaan ci moom tey liggéey bi nii mu demee ni ñëpp bëggoon nañ sax mu yegg fu ko gën a kawe waaye da lu jot rek yomb ñoo ngi gërëm nag ñi fi nekk ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ñëpp di rafetlu waat seen teewaay ndax sonn nañ lool ci liggéey bi ñoo ngi def lu ñu mën ak lu ñu mënut démb ba tey kenn tëddagul ci laal ñëpp ngi nekk ci liggéey bi ñu ngi koy rafetluwaat bu baax a baax ginnaaw nag suñ jëriñ bu waxee kàddu yi du mën a bëri ñu ngi tuubaat bu baax a baax a baax. jërëjëf soxna si. sëriñ bi tur bi naka la. waaw Modou Mbaye la. ban école. Zil Sagna daayira Tazawul Subaan bu Thiès léegi comme que wàllum organisation nga nekk te xam na ni liggéey bi ñi ko ŋànk yëpp si si ngeen bokk dañoo bëgg a xam rek ana naka ngeen dundee bis bi. waaw mën naa ni balaa maa tontu sa sa question damay nuyu mbokk taalibe yëpp. di wax naa alhamdulilahi wasalla abada alalazi bihin la dan huda abada jërëjëf Serigne Touba jaara maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp di ñaanal si Serigne taxaa yàlla suñu borom yàggal ko fi sëñ Amdi Modou Menda Fall ak mbooloom jullit di ñaanal ziar bi nga xam ne moom lañ ñëw pour si ko sëñ taxaa ñu koy ziar ay année année année année te bu ñëw rek gën a fooxo bu buñ passé waaw man mën naa ni ñun ñu bokk ci commission café commission café bu ñu ko waxee wax xidma te xidma liggéeyal borom Touba la ñun dekkuñu si dara dara dara dara dara lu dul mbokk taalibe yi bëgg loolu rek lañ nekk waaw loolu waaw moom si. jaajëf sëñ bi dafa mel ne kàddu yi rafet na. ginnaaw buñ la nuyoo ba noppi ñu ngi lay ziar bokk ci membre d'organisation si fédération bi ana na ban yëg-yëg nga am ci bis bi. bisimilah barke woon tuwa maa ngi siyaar baax a baax di baax yow it yëg-yëg bi am bi ci moom mooy ak mbégte rek ak santaat suñu Muntaxa baax a baax a baax ndax lii tawfeex la ci ñun ndax amuñu loolu suñu Tuubaa te suñu Tuubaa mi nuy wut nag ñu ngi ñaan yàlla nañ ko fi amee ngi jëm di ko sàkkuwaat rek di ko ñaar ci barke suñu Tuubaa am fi suñu rek ñëpp am ci ngërëm bàkk bam tuwaa dafa mel ne ay élèves lan si ngeen bokk si membre d' organisation ñu gën ko xamee si cuisine bi ana ban yëg-yëg ngeen am tey si bis bi ah man de maa ngi sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba bu wér ndax daanaka bu ñu amee lii lépp moom moo tax tey moom sama xol daa fees wax dëgg fa yàlla damaa kontaan daa lii rek taw feex la fi mu ne mënu maa wax moom wax dëgg fa yàlla kontaan naa lool. ndax eh, Serigne Touba moom lu ci waay def sa bopp nga ko. macha allah kàddu yi rafet na taw kon kontaan continuer.